asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit bokki taalibe ci ndigalal cheikh mahamadul muntaka xalif général kul murit yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ci ndigalal cheikh mahamadul moustapha xalifatu cheikh masamba mbakke yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ci turu jëwrinam di sëriñ mamor mbakke moom sëriñ masamba sëriñ abdul xabir mbakke moom sëriñ masamba ak mboolem njabootug ma samba Mbakke gépp dalee ko ci Serigne Modou May Mbakke moom ma Massamba ba ci Serigne Abdul Khabir moom Serigne soxna Daba Mbakke moom soxna mu bu ma Massamba ba ci soxna maam Issa Mbakke moom ma Massamba ak mboolem njaboot ma Massamba Mbakke gépp bu ngeen gisee jotaay bii ngeen xam ne jotaay ndigal la waxtu wi nag saa buñ ci mësaan agsi xel bokk yépp dana dem ci jëwruñu Serigne Touba ji nga xam ni léppam da koo seeloon ci Serigne Touba radiyallahu anhu muy Serigne Massamba Mbacké radiyallahu taala anhu ñu dëlmal bis bi nga xam ne nag ci lañ ko baaxoo fàttaliku muy bis bi nga xam ne ci a ganee jamono muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Chaban ren jii nag incha allahu taala mu war a doon bisub gaawoo di yem ak fukki fan ci weeru avril ci atum deux mille vingt et def dul jëbbal kaddu gi Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Mahmoud mi nga xam ne moo yar kaddu njabootu Serigne Massamba. mu jot lu ñu ndigal li nga xam ne moo bàyyi ko ci sëriñ bi jëm ci mbooleem mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi kon ñu maase déglu ko. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalu sëriñ Mountakha Mbacké xalif général de Mouride ak ndigalu sëriñ Moustapha moom ma Massamba ne ñu baaxoo def bis bii nga xam ne mooy ñëw di bisu ma samba di yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci Chaabaan di yemoo fukki fan ci avril ñu ñu daa ca fàttaliku Seex sàmba di ko ca ñaanal di ca di déglu ndégal yamu daa joxe waaye di ca wattandiku yam daa tere ci loolu sëriñ Moustapha daf leen a wax ne mu ngi nuyu taalibe yëpp fu ñu fi mën a nekk ci biir réew mi walla ci bitim réew mu di leen yëgal ne bis boobu incha allahu ren danañ ko def fii ci Touba te sëriñ bi am na ci yitte lool sëriñ Moustapha Massambat am na ci yitte lool ak sëriñ Mamoor ak njaboot gi yëpp lay seen yitte mooy lépp lu sëriñ bi digle ñu jëfee ko nam ko diglee lépp lu mu tere ñu bàyyee ko nam ko teree loolu mooy taxawaayu sëriñ Moustapha mi bëgg-bëggam bépp mooy luy ndigal taalib yëpp maasa ci lu dik tere taalib yëpp maasa ci bàyyi ko kon ndegam sëñ bi joxe na ndigal ñu defe bis bii ci Touba kenn ku nekk ca kër ga nga nekk nga toog fa jàng fa alxuraan jàng fa xasida loo fa mën a def nga def ko fa ci ay teraanga dana doon nag ndigal ci at taalibe bu nekk dana doon ndigal ci taalibe bu nekk mu jëfe lii nga xam ne moom lañ ko digal ndax wóor nañu ne kenn ku nekk lay lay yéeneem ak yitteem mooy jëfe ndigalu sëriñ bi ni nga xamee ne buñ leen woowoon lum sori sori ngeen bàyyi lu ngeen jàpp ñëw fekk si jataay boobee na ngeen ko defee noonu bu bis ba ñëwee moo xam ku nekk ci biir réew mi ci gox yim gox yëpp ba mu jeex ci ci Njàmbur ci Saalum ci Bawal ak ci kenn ku ne dem ci këram jàng fa alxuraan jàng fa xasiida ñaan fa yàlla ya sunu borom yokk leeri Cheikh Massamba Mbacké ca foofee mu nekk ca barsam ak mbooleem ñam fa nekkal ñépp ci loolu nag sëriñ bi mi ngi leen di xamal ne béréb boobee ñu ko daa defee muy Daaru Karim ba tey béréb la rek bu fa nekk fii ak ndigal li jeexul moom deesu ko fa mën a defee waaye nag mi nga sàkku ci képp koo xam ne jox nañ la fa béréb muy kër nga sanc kër googee def fa la nga man di yokk ba ba muy àgg waaye kuñ jox kër luy bëgg a mat fukki at ak nangam defoo fa dara na la wóor ne bu ñu demee ba gis ñu ku ko gën a yittewoo dañ ko koy jox kon nag ndigal li bu ñëwee na ko ñëpp jëfee ku fa am kër wala nga am pàkk boo fa am lu mën a doon nang ca def la nga mën lépp ndax loolu mooy ndigalu sëriñ bi ndax nit ku bëgg a tedd ku nekk da ngay nangoo liggéey ku bëgg am nga rëmul suñu boroom da ngay nangoo jaamu yàlla nañ fas yéenee jëfe loolu te bañ caa soppi dara bis bii ñuy wax itam nag dara taxul ñu di ko def lu dul dun gën a gën a gën a fàttaliku Cheikh Massamba gën koo ñaanal gën ko gën ko gën gën a yàlla suñu borom dogal yokk ay leeram ca barsàq fa mu nekk lool loolu mooy tax ñu di ko def loolu nag dara du ca jiitu jàng alquran dara du ca jiitu jàng xasida dara du ca jiitu ay istixfaar yu bari ak jéggul suñ borom tabaraka wa taala loolu buñ ko defee dana mel ci misaane li ñu bëgg lépp mën nañ danañ ko ci am incha allahu te lépp lu ca waaye fas suñ borom defal ko ko sëriñ bii nag nga xam ne mooy sëriñ Moustapha di su di di xalifa sëriñ Massamba moom li ko war lépp def na ko ndax day béréb ba moo fa njëkk a def lañu fa def la mu fa def ba léegi boo ko xoolee daanaka mel na ci misaal ne war naa mën a defar sax lu nekk def def bañ koy tàmbali joxe na fa téeméeri million bërki démb rek la joxe waat beneen téeméeri million mu jëm ci liggéey boobu loolu nag dañu xamal ne moom kat mooy suñu jëwriñ waaye moo nu man fuuf ndax li muy def mënuñu koo def pas-pas bi mu am xëy na àggunu foofa li mu man itam yàlla dogal na mënuñu ko waaye nag nu fas yéene roy ci moom topp ci moom te tépp taalibe bu ko dégg bu nekk lu mu mën a jàpp mu bàyyi ko lu mu am mu def ko ci ba béréb bi mel na mu war a mel lii mooy ndigalu sëriñ Moustapha mooy ndigalu sëriñ Mamor te loolu lañ fas yéene di ko jëfee ba faw bis ba nag mooy doon ni ma ko waxee ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci mois de Chaban di yemoo ak fukki fan ci mois d'avril di gaawu koo xam ne kii bis boobu ñëw na boo xëyee na nga xëy ci loolu ba jant so loolu mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi digle ci loolu lan fas yeneen nekk te duñ ca soppi dara incha allahu yàlla nañu yàlla dimbale ba ñu mën koo jëfee ni mu ko bëggee te mën a bàyyi ay tereem ni mu ko teree ah sëñ Muntaxa mii fi nekk nag di sëriñ Touba sëriñ bi ne mi ngi koy sant bu baax di ko ñaanal bu baax yàlla dolli ko kàttan dolli ko wér ndax gis na bëgg gu mu bëgg Seex sàmba goo xam ne genn bëgg nekkul ci kawam te loolu seere ngeen ko am na bis boo xam ne dafa ñëw fii siyaar si ko ba mu ko siyaaree ba noppi doog delluwaat Daaru Minam jàpp benn bis ne bis boobu day da koy jagleel sant sëriñ Masàmba ñu fas fa yendoo jàng alquran jàng fa xasiida ba jant soo mu teral njaboot gi ñëpp ña fa nekk mu teral leen loolu mu teg ca nag kàddu yu gën a yéeme sax kàddu ya mooy daf na day lii ma def ci sëñ ma sàmba day taalibe bu ne war na la nga delloo ko njukkal war na la kon loolu wane na bëgg gu mu bëggoon Seex Massamba wane na xam nga mu xamoon Seex sàmba waaye wane na itam ne Seex Massamba toll woon ci Sëriñ Tuuba kon nag loolu kuy taalibeem te dégg ko war ngaa xam ne jàpp nga fu wér jàpp nga fu dër nañ ci dollee góorgóorlu di jëfee ndigal yi tey bàyyi tere yi lii bu nu ko defee daal li nu bëgg lépp danañ ko am yàlla nu yàlla dimbale man mën a sax ci loolu yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def wa ma zalika alallaahi bi aziz wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi kon lii mooy ndigal li nga xam ne moo bàyyi ko ci cheikh mahadul moustapha jaar ci jóoriñam di sëriñ Maam Mor moom sëñ Basamba ñëw ci sëriñ cheikh moom sëriñ Mahmada mi nga xam ne moo yar kaddu kër gi mu wàcce ko nag ci mboolem njaboot gi yëpp ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew mu jëmoon ci fàttaliku ganek jamono a Cheikh Massamba Mbacké radiyallahu anhu mu war a doon gaaw di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru badaxlu wii di yem ak fukki fan ci weer avril sëñ bi nee na ndigal li mooy fu waay nekk na ko fa maggalee ñu dundal ko ci sunna ci noonu yi ko sëriñ Cheikh moom sëñ Mahmoud doon waxee tamu mati mate sëkk fu waay nekk ñu yandoo ko jàng alxuraan jàng xasida ak benn njaboot gi ak dëkk yi ba fu waay nekkin mu defee ko sëñ Moustapha dafa wax ni kër sëriñ Massamba kër ndigal la saa su nekk lépp lu sëriñ Touba digle nee na Cheikh kër Cheikh Massamba ñoo ngi ci biir ndigal loolee ndax Cheikh Massamba foofee rek la féete ku baax ki gannaaw loolu it sëriñ Moustapha moom sëriñ ma nee na képp koo xam ne am nga kër ca Daarul Karim nee na jox na la ndigal bu màggal gu weesoo nga dem sanc ko ndax fas na yéene moom kër boppam gi dana ko sanc te jox na ndigal képp koo xam ne ndigalam ngay déglu nga dem sanc kër ga nga fa am te képp koo xam ne tàmbale woon sab liggéey nga tàmbali ko nee na it liggéey bu mag bii mu sëmbal sëriñ Massamba ca Daarul Karim muy jumaay Daarul Karim liggéey bi bu ñu ko tàmbale léegi sëriñ Cheikh leeral na ko ku ne xam na ne fi liggéey bi toll bu yàggul li sëriñ Mamour mii jori ñëw woowoon na mbooleem njaboot gi ñu seet li fi nga xam ne fa la bi toll ngir ñu mën koo wëyal addi nag ci wàllu jumaa ji it ngi koy wëyal képp koo xam ne indi nga sab liggéey ci sëriñ bi ak foo mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew incha allah taala dana la ko defal ci liggéey bi kon mbokk yi lii moo doon woote bi sëriñ Moustapha mu sëriñ Massamba nee na mi ngi yeesalaat ak cantam ci sëriñ Mountakha moom Cheikh Amadou Bassir mi nga xam ne mooy jëruñu sëriñ Touba ci bàyyi xel gi nga xam ne bàyyi na ko xel sëriñ Massamba ak wàccuwaay bi nga xam ne jox na ko jox na ko kër sëriñ Massamba nee na loolu gis na ko xam na ko jàpp na ko te fas na ko yéen a ànd ak moo ànd ak moom ak mboolem njabootu sëriñ samba gi ñoo ngi sant ñëpp di jégalu ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ya jamilan la